copier coller dañuy plagier. Mm-hmm. xam nga lan ma waral loolu. gis nga quand on a une conception jouissive du pouvoir yow li ngay gis mooy naka ngay defaree sa bopp. mooy nguuru gi mooy nguuru gi rek. léegi nag loolu moo waral nit day xaar ba trois mois avant élection rek mu dem lijjanti la benn programme ñoo jox la ko ne leen boo leen ma falee ma def léegi laa alors qu'il y a aucune réflexion derrière ñun jiital Wareef le devoir en mouvement on a commencé notre réflexion par un référentiel des valeurs. amul benn parti bu nekk yéen mës ngeen gis parti politique bu am référentiel des valeurs doyen peut-être qu'avec l'expérience qu'il a mën na ma si tontu wala yow nga tontu ma Adama Fall wala yow Birane le premier document fondateur de notre parti c'est un référentiel des valeurs référentiel des valeurs nag moom moo jur le projet sociétal ñun nous avons réfléchi à un projet sociétal c'est un livre de 300 pages boo xam ne dañ ko génnee dans les prochains jours amul benn domaine boo xamante ne xalaatuñu ko dans le menu détail yaa ngi wax sànq ne da ngay dégg ñu naan industrialisation nga def nga reetaan effectivement man su ma gisee man sama bopp sax ma romb jam ñaaju ñu naan voilà la politique industrielle du Sénégal damay reetaan ma ne on n'a pas compris. Mm-hmm. parce que l'industrialisation da nga koy gérer de deux manières il y a ce qu'on appelle l'industrialisation par substitut d'importation maanaam. Uh-huh. réew boo gis. Uh-huh. da nga war a concevoir une industrie soit parce que am nga marché bi sa biir réew et tu le fais de la substitution nga mettre en place euh, des stratégies leneen li mooy lan mooy quand on industrie quand on industrialise un pays il faut le faire dans le cadre d'une segmentation man ba ma demee Gabon dem Maldives j'ai aidé ces pays deux pays à fonder une industrie autour du manganèse du bois aux Maldives autour de la pêche. Yo, de l'informatique man maa ngi liggéey depuis maintenant 17 ans. ci li ñu wooyee les réformes institutionnelles et de la gouvernance démocratique. waaw 88 pays cela fait 17 ans man maa di mm. jàppale di asseoir seen politique de développement. jàppale nga gars yi fii ci réew mi Sénégal boo sukkandiku. wala gars yi soxlaaguñu la. gis nga Sénégal. la réforme c'est dans ce pays. la réforme ñaata nit lañ fi recevoir ñoo xam ne ce sont des candidats doyens et ay nit yoo xam ne ce sont des têtes. mais kenn du la utiliser kenn du la jël kenn du la utiliser parce que bokkuloo ci système bi moo tax nag Birama faut pas aussi ñun ñuy jaaxle ci gis ay candidats pour égaler boo bokkul ci système bi kenn du la jox liggéey pour égaler Sénégal man maa def la réforme des cours d'assises ici xam nga cour d'assises amoon na fi ci réew mi mm-hmm. man maa tax ñu supprimer la cour d'assises les cours d'assises au Sénégal yow mii nii man mii la réforme de man je suis un spécialiste en sciences politiques. mooy science politique boo ko defee da defaale tout à fait donc lépp lu aju ci réforme institutionnelle gouvernance kii nii moo tax ñu euh, dindi cour d'assises ah, cour d'assises mi ñu jógee gis nga voilà gis nga gis nga balaay ba may def loolu ah, j'ai fait le tour de toutes les prisons du Sénégal rencontrer euh, les magistrats moo xam procureurs yi moo xam les juges du siège dem ci administration pénitentiaire dem xool yi prisonniers yi seen ba xool lu ñuy dund mm. def un rapport la gouvernance carcérale Mm-hmm. donc tous ces éléments ont abouti à la réforme de la carte judiciaire du Sénégal et également à la suppression des cours d'assises par la, euh, la, la la mise sur pied donc des euh, chambres criminelles permanentes léegi gis nga pour ma ñëw ci suñu euh, suñu projet nañu moytu moo tax ma leen di ñaan yéen journalistes yi quand vous invitez des gens yoo xam ne dañu ne ay candidats la ñu il faut les challenger par rapport li nga xam moom la ñuy proposé ñun proposé ñu programme on est parti d'un référentiel egg ci projet sociétal. léegi projet sociétal bi celui qui va rendre ce qui va rendre le projet sociétal opérationnel et fonctionnel c'est le programme politique gis nga cohérence d'ensemble boobu mooy tax yow nga mën a taxaw nga ne Sénégal voilà ce que je prévois je vous donne un exemple ñun avec le modèle économique auquel on a réfléchi le modèle nous permet aujourd'hui dès 2025 de projeter le budget du Sénégal à 17 000 milliards te dañ lay wax fan lañ koy jaarale on passerait de 7000 à 17000 milliards et je ne parle pas du pétrole ni du gaz en 2025 léegi nag c'est à partir donc du modèle société du, du, du modèle économique que ngay mën a nag concevoir say politique publique et boo defee loolu nag maintenant nga def ay aménage ay ay schéma directeur dans chacun des domaines en disant que dans le domaine de la pêche c'est un domaine extrêmement stratégique pour le Sénégal parce que dafay laal la géopolitique de notre pays nga ne léegi tey je vous donne est-ce que xamane ngeen ne les Maldives nga xamante ne c'est un pays boo xamante ne archipel la mm-hmm. ils ont la deuxième euh, expertise en matière de construction navale xam nga lan moo leen may loolu mm-hmm. c'est parce que ils se sont rendus compte que bu ñu bëggee gérer seen i pêche il faut que ñu dem ñu investir dans l'industrie navale léegi nag imaginez leen le développement d'une politique publique en matière de pêche les a amenés à être aujourd'hui le deuxième pays constructeur mondial en matière de navale expertise bi bu ñu ko amee boo xoolee bu dul France peut ñoom lay doon. parce que parce que dañuy réfléchir sur sur sur modèle économique comme ni mu ko waxee benn boo xam ne dina dundal réew. exactement après loolu day ak sa ak sa réew. absolument leneen li mooy Sénégal ñun dañoo am lu ñu woowee les théories d'économie politique yoo xamante ne dañ ko dem jégaani. yaa ngi doon wax sànq sur le franc CFA adapté wul ak suñu mën. Ah, adapté wul ak suñu réew dama lay jox exemple. xam nga bu ñuy créer le franc CFA moo tax ñun suñu suñu réew yi. il faut ñu comprendre les enjeux y compris les politiciens mmh. parce que bu ñu ko comprendrewul mais la dañuy nekk di dafa dafa mel ni nga nekk di cogner dans un mur mmh. gis nga la la monnaie dans un pays est fondamentale maîtrise bi boo ko maîtriser wul mënula am politique de crédit mën a am politique d'épargne et le franc CFA fi mu toll actuellement mmh. dafay empêcher suñuy réew ñu mën a industrialiser seen bopp moo tax gis nga le projet qui est en mis en œuvre par l'éco par la CEDEAO mm-hmm. dans le cadre de l'éco éco bu bees bi mm-hmm. il faut ñu dugg ci le plus vite possible parce que le franc CFA a été conçu pour être un frein mm-hmm. à l'industrialisation de notre pays loolu moo waral Alassane il faut nga ñëwaat ci émission bi parce que tey xam nga euh, depuis vendredi la ñu programmé vendredi d'ailleurs yooyu kese ay nekkoon suñu invité c'est ce qu'on fait d'habitude avec les candidats bu ñu ñëwee ñu toog mais tey ak situation bi li ñu dal actualité bi nga xam ne moom moo ñu euh, moo ñu dab tey du ñu mën a euh, di di di di épanché wu de trop ci mhm. ci yenn yi mhm. donc ce qu'on va mooy il faut nga ñëwaat incha allah ñu gën a jàkkaarlook yow parce que li nga li nga wax léegi nii par rapport